ñewon ci terrain yi pour borner suñu terrain parce que lu mat at ñi ngi ci top di ci daw toj nañ suñu kër ordonnance amul sommation amul mësu ñu wo tribunal ñu def li ñu yoon may moy top ki nga xamne mo tojon suñu kër sans ordonnance tribunal addu si tej ko ñaari ati kaso mu am mandat d'arrêt contre par corps ak daan ko lu mat 4 milliards mu warona don doon prisonnier doonul prisonnier mu lijjanti ba dem cour d'appel def appelam bi mu defé appelam ñett yoon ñi ngi atté dossier bi renvoyé gun nañ ko ñett yoon juge bi yor dossier bi nee mënu ko atté te mom doonagul prisonnier ba paré mom avocat am ne mënta don prisonnier té gisul mandat d'arrêt te mandat d'arrêt bi kat mi ngi si bureau ki nga xamne ne wara contre war muy procureur lu mat at bi jugement bi amé légui signé guko tay ñew nañ muy préfet muy gouverneur muy police yu yëmbal police yu wàqinaan ñëw waxtaan ak ñun en tant que citoyen sénégalais nañu nañu may ñu def seen rapport agalé ko autorité bi motax ñu may tay mais nak bu fek le 5 novembre buñu jappul mbay fall dinañ borné sun terrain bu leen neexee nag ñun cent 253 familles yëpp nañ ñu jàpp tëj ñu si kaso bi bu boobaa ñu xam ne Mbaye Fall mooy citoyen sénégalais ñun duñu ay citoyen sénégalais. Ah, sama jëkkër dafa gaañu sama kër a ngi fii wu ma bokk ak samay mag yu ma bokkal ndey ak baay sama ñaari kër doom yi mag a ngi fi muy sunu ñetti kër maa ngi nii maa ngi taxawaalu barke Seydina Mohamed xaw ma fu ma dëkk sama kër mag laa nekk te benn néeg lan ma fa jox maag samay doom yëpp ñu dajale fa yor naa juróomi doom.